الله من كل كريم أكرم من آمه قد nga xam ne fi nga xamante mooy Dakar Midi mbokku diaspora beeg ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm ak salaam di ñaanal màggalu màggalu jàmm lépp loo xamante ne ñaan nañ ko si li nga xamante ne mooy màggal gi yàlla ko yàlla def yàlla dindi fi li nga xam ne mooy mbas mi ñaan nag xabru nekk borom jàmm jamono borom njur moo fi nekk yi nga xamante ne tey moo tabax daaray umul xura tabax daaray kokki ko nga xamante mooy Serigne Saliou Mbacke fii mooy xabru Serigne Saliou naa la mag ndaw xale ñëpp ñi nga xamante ne tey foofu la ñu wuti boo xoolee ak ki nga xamante ne mooy Serigne Fallou seen xabru yi ñooy gën a ëpp ay nit toujours nit ñi foofu la li nga xamante ne tey doomu aadama yi foofu la ñuy tase mais gis naa ne li nga xamante ne mooy mesure barrière yi gars yi respecté nañ ko trop lool parce que ñi nga xamante ne mooy xale yooyu nekk ci li nga xamante ne mooy tubaa ca kanam ñu ngi taxaw si porte jumaa yi fu ne puy dugg rek ñu xool ndax am nga masque ñu jox gel bi nga laal sa loxo nga soog a dugg si li nga xamante ne tey mooy si jumaa ji nga def ziare loolu defe naa am na solo lool loolu am na solo trop waaw am na solo lool. waa ndeysaan ñi nga xamante ne fii xam si Saliou bi na ko suñ doon doon digle rek. taalibe yi nañ koy defee parce que boobu ba léegi boo foo toll ñu ngi jàng li nga xamante ne tey mooy xasida yi ndeysaan dëgg ma loolu naa leen fii nga xamante ne mooy Dakar Midi lépp lu am ci màggal gi incha allah dama ngeen vérifier ko foofu dara da leen ci raté حنزادك بل خاسخ المداوى في غروة المنكسر ناقي الله waa ndeysaan boo xoolee ñaari porte la fa li ñu duggee daw siyaare ji ñu ñëw génnee fii ñaa kii mooy Serigne Salim Mbacké borom jàmm ak jamono waaw ñàkk ko saari wóorut déedéet doomu aadama yaa ngi dugg foofu sànq ba léegi di ñaan seen soxla lépp lu fi ñaan yàlla ko yàlla faj yàlla faj aajo doomu aadama yi def ñëpp jàmm ak salaam képp ku fi ñëw yàlla nga ko yàgg di teew ay at yi bëree bëree bëree bëree bëree bëree bëree bëree bëri di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam salaamaaleykum maa ngi lay nuyu waaye salaam wa rahmatulah di la laaj tur bi naan la sëñ bi Massamba Sarr Massamba Sarr foo jugee man maa ngi jugee Touba Ndiarème fii ci fii xabar bi ñu nekk may xam Serigne Saliou. waaw waaw te loo ñu tuuti. Serigne Saliou ah xanaa Serigne Saliou moom ku nekk xam na ni moom ku suñ boroom borom tawféexal la mu nekk koo xam ni xëy na dañuy ay ndaw li nga xam ne moom bariwut waaye ku ku ragal yàlla koo xam ne moom jaamu yàlla ak liggéey daal moom lañ xam ci moom waaw koo xam ne tamit ku yërëmoon ndaw waaw. daan xittal mboolem ndaw yi ci lu baax ndax ku nekk xam na daaree xel ko mi nga xamante ne sos na ko nga xam ni ay ndongoy tarbiya la ay ndongoy tarbiya la fa yor waaye tamit teg leen ci di leen jàngal alxuraan waaye tamit di leen tarbiya loolu daal moom luñ xam ci moom la ak tamit teg leen ci yoonu liggéey ndax ku nekk xam na maam wàllum mbay mi nga xamante ni daan na ko def ca tool yi nga xamante ni mooy xel kom loolu daal xam na ko ci Serigne ko ngi lay jaajëf bu baax. waaw jaajëf mu de xoolee ndeysaan nee naa la ñàkk a seetaan Dakar mi di nu wóorut déedéet lépp loo xamante ne nii mu ngi jëm si màggal gi ñu ngi fi nga xamante ne tey mooy à l'évent rek ñu xamante ne tey mooy xabru Serigne Saliou kii mooy borom juróom nee naa la mooy borom xel kom borom mbay mi moo yërëm ndaw ñi yërëm ñëpp ndeysaan gaa ñaa ngi ci liggéey bi. di wax nit ñi nañ nañ marché nañ dox. la ilaha illallah ndeysaan. jërëjëf Serigne Saliou. jërëjëf Serigne Saliou. jërëjëf Serigne Saliou. jërëjëf Serigne Saliou. ndeysaan waxi Seex Béthio ja ndeysaan jërëjëf Serigne Saliou ja fa mu saan toll di ko dégg mu di ko wax jërëjëf Serigne Saliou jërëjëf Serigne Saliou waaw waaw. salaamaaleykum maa ngi lay. maa ngi la. mami. mami waaw. fan nga jógee. maa ngi jógee dakaar waaw. nga ñëw fi nga xam sa soxla. waaw damaa ñëwoon màggal si. di ñëw ñaan sama saxla fii ci barab bi. di ñaan yàlla nangul ma màggal gi lépp lu ma fi ñaan yàlla defal ma ko ak mboolem jullit ci barke Seydina Muhammad ci barke Sëñ Saliou Mbacke yàlla yàlla nangu lépp. amiin amiin. jërëjëf ñu ngi lay jaajëf. waaw ah, kay jërëjëf. salaamaaleykum maa ngi lay nuyu yaay booy. maa ngi lay fay. tur la. Ndagabi Sène. tey ma fekk nga toog fi nga xamante mooy barabu Sëñ Saliou da nga ñëw toog si pour ñaan say soxla. waaw loolu de ñu ngi nii ñëw di dékk suñuy loxo di ko di ñaan yàlla màggal gi fekk ñu ñu fekkee ko ay at yu bare bare bare bare ndax xam nañu suñ Tuubaa moom amul tànk ginnaaw. tànku kanam rek rek rek la am te képp ku ko diis say soxla tamit xam naa ne du doon ñaari yoon bépp loo ko wax ko gis incha allah. amoon amoon amoon nañu yaakaar ne màggal am ren amoon ngeen yaakaar boobu. non nan màggal dina amoon am day mel ni ngay laajte ndax la rek màggal Touba moom xanaa ku doon tëdd ba xaaju guddi ne la du am war ngaa tiit ne lii damay nax wala affaire bi noonu demee màggal du am loolu ko doon xalaat am ci àddina. na benn image image bu a mën a fàttaliku ci moom mu hmm, ko mës a fàtte mooy comment la dire ça image am bu muy waxee bay mel ni kuy tàggatoo ba muy tàggatoo toog tuuti nga dégg ne sëñ bi nelaw na bi image yi di ko gis ci téléphone yi mu mel ni ku wax ba tuur rongañ waaw ba tuur xéewal yi laa mën a fàttaliku ci moom. Lisa ba mu jaral lu ne nga bëgg. man de yàlla dafa def yoonu murid moom ñëpp a nekk ci biir xol yi xam nga mën nañ ne nouvelle génération bépp sëñ Saaliw la mooy seen seen ndax moom lañ fekkeel daal jamonoom jamono sëñ Saaliw la nouvelle génération bi yëpp fekkee man yàlla dafa def daal kii moo dee sama xol mooy sama lépp moom laa am yàlla ñaan naa yàlla bis ma maye doom muy góor muy jigéen sëñ Fallou laa yéene doon jërëjëf أكرم مواد